rafetlu jotaay bi may fàttali que élection locale yi ah bu ñu ko dàqee mun naa ne ci ku jege la jóge ndax ñi réew mi ñëpp xam nañ ne nitu ouverture la nitu waxtaan la nitu dialogue la 2014 woote woon na waxtaan bi ko yàlla mayee ndam aussi ak Sénégalais yi 2019 bi weesu kàddu gi mu njëkk a yëkkati kàddu waxtaan la ñu toog pencooree ba waxtaane ko te su ko neexoon du ko def parce que moom moo gañe élection yi bu ko neexoon mu déroulé programme am mais dafa ne unanimité moo gën consensus bien que kenn mënut am unanimité dañ leen toog ñu waxtaan ku jëg yëpp ñëw fekk si ko ci dialogue national bi ak dialogue politique bi dialogue politique bi représentant ku jëg yëpp a ngi ci bi ñu waxtaanee ci lañ juboo ci ay pàcc yu bari bi jiitu mooy ñu dàq élection locale yi élection gox yeeg gox goxaan yi jongante bi ñu dàq ko bi ci topp mooy euh, mu am maanaam suffrage direct parce que bu njëkk dañ doon tàdd maire te population yi du ñuy tànn maire population yi liste la ñuy tànn bu ñu list ba pare list bi toog parti beeg coalition bi waxtaan seen biir ba tànn maire donc maire bi du doon refléter euh, réellement maanaam choix population yi donc yooyu yëpp ñu juboo ci juboo encore ci dàq parrainage bi ci local yi donc mun naa ne waxtaan woowu ku ji aussi am lu mu sàkkoon li mu sàkkoon mooy ñu auditer fichier électoral bi ñu évaluer processus électoral bi euh, ñu fexe itam ba Euh, te boo jëlee ñaar yi nga boole ci parrainage bi boole ci aussi ak révision des listes. nga xam élection yu ñu dëgmal day faral di am ñiy bindoo feneen ñiy wote feneen ak ñi nga xam ay ndaw lañ ñoon mu ñu nekk ay mag war a dugg ci fichier bi gi diir bu ñu soxla woon diir boobu lañ topp ba tey. bi ñu defee appel d'offre bi aussi ay experts ñoo gagné maanaam euh, marché bi du ñu ay sénégalais ñu ci bari. ay guinéens ay maliens ñu mel noonu ñëpp jubóo ci seen probité seen expérience ñoom ñoo amoon les meilleurs profils. jël leen démocratiquement liggéey bi ñu amal gagnaaw ba union européenne ñi koy wax ne fichier bi c' est viable c' est fiable à pour cent ñoom it bi ñu defee seen liggéey càmbar ko ba pare résultat yi ñu jox moom mooy fichier bi c' viable c' fiable amul doublon amul mineur ba pare ku ci nekk rattaché nañ la ci benn lieu ak benn bureau de vote donc dëgg dëgg gisuma euh, euh, euh, jafe-jafe yi war a am buñ ko dàqee. ñoom ñoo sàkku. donc ñoom dañoo jàpp ne naam ah, audit def nañu ko ay experts internationaux itam ñëw nañu def liggéey waaye gis nañu ne am na yeneen incohérence yu ne ci biir wax nañu xëy na bindoog wala woote ci ay extrait de naissance ak yu mel noonu muy xeetu incohérence yi nga xam te ñoom ba léegi dalagul seen xel ci ñu mën a dem ay ci ay élection ci fichier bi ni mel. dañu parewul pour dem ci ay élection ci li ma yaakaar ndax ki yàlla may ndam ak sénégalais yi mu woote waxtaan ngeen wuyu si ne lii lañ bëgg li ngeen bëgg mu defal leen ko ni ngeen ko bëggee te amul woon obligation def ko mooy ñu amal waxtaan bi waxtaanul woon obligation démocratie résultat élection mooy baromètre bi ku nekk dangay am sa programme politique de gouvernement am sa projet de société soumettre ko à l'appréciation du peuple souverain sénégalais yàlla ak askan wi moom seen bopp bu ñu tànnee kooku dafa war a doxal gis-gis bi mu am ci réew mi ngir mu naat terewul dem na sax ba am Afrique benn prix euh, ci wàllu démocratie buñ ko jagleel bu suñu frère Maodo Malick bay jiite mu woo leen waxtaan ñu ne lii lañ bëgg mu defal leen ko ni ñu ko bëggee li fi am yëpp ñoom ñoo ci juboo muy dàq élection yi dàq jongante bi muy supprimer maanaam euh, euh, parrainage bi ci élection locale yi muy suffrage direct bi ci gox yeeg gox goxaan yi ci jogante yi donc loolu yëpp dañ ci juboo ñu ne nañ auditer fichier bi nañu évaluer processus bi nañu dindi parenage bi nañu def suffrage direct li ñu bëggoon lépp ñu may leen ko ñu ne léegi nañu auditer bi ñu def appel appel d'offre ay seen ay ay borom xam-xam yu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu jogante ci Afrique ak ci àddina doon ay doomi Afrique dëkkuñ sax Sénégal présenter les meilleurs profils ñu jël leen démocratiquement ñu def seen liggéey daf liggéey bu mucc ayib liggéey bu lalu liggéey bu lalu ci xam-xam ak expérience joxe ay résultat gannaaw ba Union européenne ñi koy wax ba pare ñu ne ànduñ ci ñoom ñu ne fichier bi baax na amul doublon amul mineur ku ci nekk am nga fu ñu la rattaché. mais mais mais Birame est est mën nga génnee la responsabilité de l'État euh, ci li nga xamante ne mooy report des élections locales parce que opposition bi ngay wax ni yàgg nañu yuuxu di wax ne il faut que ñu respecter la calendrier quand même bi nga xam ne moo tënk élection ci Sénégal te bii mooy ñetti yoon ñu dàq élection locale pour la première fois yéen ngeen jël record bi est-ce que amu ci responsabilité. am nga ci wàllu démocratie idéal ñu respecter le le mais on peut pas vouloir une chose et son contraire à l'impossible nul n'est tenu rapport bu amee encore une fois ci ñun ñun dañu démissionné créé suñu parti politique def ñetti at wër Sénégal yàlla fal ñu Sénégalais yi wóonuñu jox ñu ndam ñu teg benn coalition am lu ñu digg woon ak coalition bi mooy gagner ensemble gouverner ensemble boobu ba léegi ñu ngi ànd institution yi ëpp doole alliés yi lañ ko jox def fi aussi liggéey bu mucc tey boo xoolee tous les secteurs de la vie socio-économique def nañ ci ay jéego yu am solo muy domaine yëpp. ay ngi dégg bi loolu yëpp amee ñu am aussi njiit moo xam ne quand même ci wàllu parcours politique ak parcours institutionnel amuñu li ñuy tiit. yàlla mooy joxe nguur ak sénégalais yi def nañ fi liggéey bu mucc ayib 2019 58 pour cent la ñu fale c' score soviétique région yi bu euh, nekkee on n'est pas là quand même pour faire le bilan du président am na 58 pour cent wax ji mooy le respect quand même du calendrier bi nga xam ne moo tënk élection yi le fait que respecté wu leen ko est-ce que rupture de confiance bi nga xam ne opposition bi tey amu ko ci pouvoir bi est-ce que amu leen ci nag part de responsabilité bu ngeen war a mën a taxaw da nga wax ci. rapport su amee encore une fois du suñ coobare. li ma la wax sànq c'est pour wan la ñun pare nañ pare nañ suñu parti pare nañ suñu coalition pare nañ ci suñu leader pare nañ ci suñu bilan. ba ngeen di reporter fekkul woon ngeen pare nag ma ma monsieur Birame Faye. nga est-ce que ba ngeen di reporter report yu pare yi ni ko Fatou waxee est que fekkoon na ngeen pare. est nekkul ne fan yi da ngeen a jekku moo tax ngeen ne saa su ne pare naa. ñaar laa lay mm. ñu ngi sant yàlla yàlla yàlla xeb dolli. ba ñu démissionné ñun histoire politique au Sénégal à part le naufrage du Joola et c'est des gens pour qui j'ai du respect mais qui ont, qui ont à la démission hommes politiques nga xam ils font l'objet d'accusations de détournement sax du ñuy démissionné ñun dañ démissionné dans un contexte boo xam ne li ñu doon def c'était en phase ak les missions de l'Assemblée muy voter les lois contrôler examiner l'action du gouvernement ak euh, évaluer les politiques les politiques publiques depuis 2016 politique dem élection gagné boobaak léegi ñu ngi gagné ñu ngi sant yàlla région yi bu ñu dee fukk ak ñeent mun naa ne fukk ak ñaari ñoo leen yor daanaka département yi c'est pareil. kon 58 pour cent yooyu amoo yaakaar ne effrité wu na euh, après événement yi fi jot am yëpp. après le 8 mars ñaar rek laa lay wax. <laughs> ñaar bi jiitu mooy euh, bu fekkee ne effrité wu na aussi xanaa am nañ 50 pour cent lu mu gën gaa néew loolu bu weesoo tey même bu fekkee le report de vote n'est automatique. parce que Idrissa Seck génnoon na dellu si moo topp ci ñu avec vingt cinq pour cent ki topp ci ñu sori lool xanaa kooku buy indiwul lim bu indee xaaj lu mu indi sax boole ko ñun li ñu dese boo effrité aussi. mais est ce que Idi indi na. ah non mënut a ñàkk aussi yoo xamante ne après lim gagné xaaj ko ci digg bi jëlal suñu huit pour cent mu effrité wu soo bëggee ça c' un deuxièmement gis nga soxna. man je mhm. parle de choses factuelles je de choses factuelles. ñu yow ak sëñ Mouhamed su ngeen demee examen Mouha sëñ Mouhamed raw la ah Fatoumata Bintu doomi Mouhamed la suma jum <laughs> donc Mouhamed moo war a raw Mouhamed gën gi mi def su la rawee ba ba ngeen di demati élection moom moo la